mbirum maraboutage bu ñuy tudd Abdoulaye Diop xaas ci la doy baan animateur bi nga xam ne moo nekk RFM porte plainte Cheikh Talif Diop di benn animateur présentateur bu yëngu ci wàllum faj ak fajum cosaan gannaaw benn interview bu mu jël benn xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak ñaar di wax ne dañ ko jox butéelu saafara pour mu sangoo ko dem jàkkaaroog Abdoulaye Diop xaas pour yàq àddunaam kàddu tuuma yooyu ci la doy baan sukkandiku ba porte plainte ki nga xam ne mooy Cheikh Talif Diop gannaaw ba ñu jotee Mamadou Ndoye Bane di animateur ci rajo Futur Média wax ne ne moom talul mbir moomu te du si wax. gannaaw ñetti ay bés ci ginnaaw moom Mamadou Ndoye Bane defoon na entretien exclusif ak ndaw si nga xam ne mooy Fambaye ci fàttali Fambaye moomu gannaaw. ba lu toll ci ay ñaari weer mu nekkoon ci loxoy Abdoulaye jóob Khass di faju def benn vidéo rek ne mu ngi waaj magalug daalu Salaam Mamadou Ndoye Bane jotoon def interview wax ak ndaw si ndaw si wax ci kàddu ne ba tey moo ngi faju mooy taneegul gannaaw loolu nag ci la lii dellu siwaat di plant bi nga xam ne moom Mamadou Ndoye Bane di animateur bi ci RFM yóbbu na justice ci nga xam ne mooy Cheikh taalif Cheikh Talif nag moo ngi jot plainte bi démb ci àjjuma ji wuy ji tey ji ci samedi bi ba 10 heures jotee ca brigade de recherche bi nekk ci caserne Blanchot di xaar rek fan la Cheikh taalif ak Mamadou Ndoye Bane ak Abdoulaye Diop Khass mi ngi ci tudd fan la ñuy mujjee